démb day tuuti jaxannama daal di am ci réew mi bés yéene kaay xamal ma ne niki démb kay teer ba naroon naa def jaxannama ci réewum Sénégal le soleil yéene kaay ne ab sabotage dëgg la ñu daal di def niki démb ci teer bi te sabotage googee naroon na jur loo xam ne ma su ko dabu de lu toll ci juróom benn fukki mètre câble signalisation bu teer bi moom la ñu daal di jël ni teppe daal di dagg loo xam ni nag yëfu boyu la yëfu insuffisme yëfu criminel buñ sukkandikoo ci directeur bu APEX Mountaga Sy ubbi nañ ci ma démb kay teer bi daal dina yëngu câble li ci boppam la ñu daggee diggante kër Mbay Faal ak yëmbal tribune yéen ne loo ci mën ci déggit fukk sàcc la de ndax juróom benn fukki mètre câble yi nga xam ne yu basse tension la bu signalisation bu teer bi dañu koo wàq ba mu génn ñu daal di ni ko téppet daal di dagg daal di ko yóbbu ay sàcc def lu ni lii nag munta gaasi ci tribune yéen ne daal nay teree lu toll ci fukki junni ak juróom ci sénégalais dem liggéey ndax sabotage bi ñu def na plainte te it nag munta gaasi xam le ni lañu ñoo def ñaawteef gii di acte gu bon gii daal dinañ leen di filmer laataa ñu koo def booba gaa nga jëm ci élection locale yi laas yéene kaay dama loo ci mënti déggit élection locale yi boo moytul nag APR mooy doon bukki ba nga xam ni moo fas yéene marte nga xam ne daal dinay am ci seen biir alerte quotidien ma loo ci mënti déggit Moustapha Niass moom Macky Sall yóbbu na ko ardo gannaaw ba ko Abdoulaye Wade yóbboon retraite Macky Sall dekkalaat ko moom Macky ma ko dekkaloon yóbbu na ko jiite liste wàllu bi tribune yéene kaay na ma liste Benno Bokk Yaakaar day Mimi Touré ko jiite Mimi Touré mi nga xam ne fukki at ci combat amul lenn loo xam ne mën nañ ci tegu baaraam ne Mimi Touré def na ko waaye na ca ndam Mimi Touré nag moo fi waxoon a doon nag njiital assemblée nationale en tout cas gaa yaa ngi koy rafetlu jàpp ni tab nu Mimi Touré bii ab signal bu fort la le mandat yéene kaay daal di xamle nii waxoon dina koy amaat ci élection législative yi ña ngi ko jëlee fu sore sore daal di koy génnee nag ca combaxtaluk APR moom Mimi Touré loo ci manti dee gid yi la élection locale daal dinay jax lool lool sax ña war a ànd ngi ànd ña warul ànd ngi ànd 24 heures yéen kaay ne en tout cas parrainage moom ña ngay joxe verdict yi rek aar Sénégal moom jàll na ak bokk gis-gis liggéey bu Papa Diop ñaari coalition yi jàll nañ ci parrainage bi l'observateur ne ma am na yeneen yoo xam ne day kale nañ leen ci yooyu la élection mu di bu bugaan gay dani gëm sa bopp Adama Faye ak Fadel Barro ñooñee nag daal dinañ leen di recalé source aane ma moo ne day Bougane Gueye Dany négocié woon na ak i coalition yoo xam ne ñi ngi ci réew mi de lu ci mel ni bu Abdourahmane Diouf bi waaye tam bu wàllu Sénégal mujjuta antu Bougane nag jàpp ne dëgg-dëgg wàllum politique ndaw yi nga xam ne taxewunu musuñu amuk salte waaye tam kenn musu leen tudd ci lu ñaaw ànd ca ak ñoom dafa gën moo tax nag coalition bi mu daal di cay jël ay xale yoo xam ne masuñu leen tuumaal ñaaw ci langu politique gi Kalidou Niass moom dafa mer daal di bàyyi ndax nag ak ndaw la jëlee ci géejawaay daal di koy teg ñetteel bi place bi su saa daal di may xamal ne loo ci mënti déggit mi ngi génne ak téeméer ñaar fukk ak benn junni baat ci élection locale yi nekk itam ñetteelu force politique bu réew mi mënee su koo dindi yéene bi ne ma gannaaw Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi élection locale yi ñu génn gëm sa bopp gisaat na ca boppam te jàpp ne nag bu àndu taki politique mën na dem ak ca gël guyam moo tax it moom la def daal di jël ay xale yu nekk ci coalition bi defal leen ab liste ànd ak ñoom loo ci mënti déggit coalition yi sakkan na de critique yéene kaay ne ma nañu moytu daal transhumance ki daal di fay juddu tribune yéen a kaay daal di may yu bëri daal dina ñuy dem ca Macky Sall de waaye ña leen woteeloon ña nga mer ba futtu jàpp ni nag woteelu ñu Macky Sall ñoom la ñu woteeloon te ñuy dem ak mandat ba daañu ca wéet lool ndax lu ñu ànd ak moom critique yéen a kaay ne ma alliance yi ñu gis saa si tembe mooy ay alliance contre nature transhumance gi mi ngi ci réew mi waaye tam jënd askan wi mi ngi ci réew mi daanaka ab arnaque dong la ñu fi nekkee ngir bëgg nag amuk mandat député ñene woon duñu ànd ni ki démb tey ànd nañu de gaa yaa ngi jënd ñeneen ñu bokkoon feneen ba am fandam ngir ñu ñëw ci ñoom lépp nag ci langu politique gi ngir am ndam ci élection législative yi ndax nag bu ñu yeggee ci assemblée nationale lañ doon xaar ci ñoom daañu ko mën a matale en tout cas alliance yaa ngi jur jaxan na ma de source a xamal ma ne yeewi askan wi dey alliance bi nga xam ne daal dina koy def ak wallu daal dinay jur na ñenn ñu nekk ci yeewi fas yéene tekki seen ndombal tànk ña nga ca Bakel bokk ca pur nee ñu nag ba ñuy waxtaan ci seenug biir booloo ak wallu bokk ci woon les échos yéene ka ma moom wallu sax alliance bi ma ngay tas këram ndax Mayoro Faye ak Cheikh Mbacké Dolly daal dina bàyyi Mayoro Faye ne fukk juróom-ñeenteelu place ba lañ ma jox moo tax nag bàyyi naa parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade daf ma wor ak lépp loo xam ne defal naa ko niki démb terewul Karim sa wadd mii wor na ma Cheikh Mbacke Dolly xam le nii man parti démocratique sénégalais ci boppam moo ma war sama digganteeg ñoom nag jeex na tàkk dañ maa fekk may nelaw ñu jël paaka jam ma ko ci digg ginnaaw la ma xeex ak ñoom démb mu metti lool tey ñu bëgg maa imposer Abdou Mbacke Dolly du ma ko nangu yéeni kaay bi dafa faf sax sampub laaj ndax nag Abdoulaye Wade mii nga xam ne jël nañ ko def tête de liste ne ndax doomu Abdoulaye Wade yi bëgg nañoo màgg wala màgg nañu yéene kaay bi ne ma góor gi day mi ngi ci xoluk sénégalais yi ba tey waaye nag ay élection ay élection dong la tudd Sud Quotidien xamal ma ni législative 2022 yi day dina andi surprise yu kenn foogul Babacar Fall bu Gradeg ne feem la rek de gaa yi feem la ñu daal ndax fa nga xam ni keneen mënoon na faa ñàkk gaa yi dañuy dagan ak baatam le témoin yéene kaay ne en tout cas gëtti moom teggeekuwul benn yoon ci président Macky Sall ndax nag gaa ña ngi koy xaare feneen fudul ci élection législative yi faw mu leeral sénégalais yi nag ca laam-laamee wala tam wiiri wiiri bi muy def ci ñetteel bi mandat bi loo ci man ci dégg yéene kaay bi ne desal ak man ba tey de ma xamal la ndax coow laa nga ca l'hôpital la Dantec bi nga xam ne président Macky Sall day waat na wàcc ne dañu koy daal di yeesal méngale l'hôpital Le Dantec ak jamono waaye day gaa yaa ngi laam-laamee lu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ne ña ngi ko teg nag ñoom indien ci taabal bi ngir fas yéene aki moo suufus Dantec googee nañ ko surveiller de yéene kaay bi ne nañ ko surveiller ndax suufus Dantec googee buñ ko deful dana tàbbi nag ci loxol indien yi président de la république Macky Sall nag daal dinay dig sénégalais yi defaraatuk Dantec googee waaye na gaa yaa nga yëy noppam ci suuf di ko xamal ne la gën moom moo di ñu jëlee Dantec fii mu nekk ci xoluk ndakaaru yóbbu ko feneen ay courtier nguur gi nag di ci dox ànd caak ay indien fas yéen caa jël nag juróom benn hectare def ko seenu moomeel jox nguur gi nag téeméer ak juróom fukki milliards yéene kaay bi na mën a ci askan wi wax de lu ko mooy làmbaay dina ñaaw réew mi quotidien xibaar bu neex diggante Ziguinchor Kolda ak Tamba niki démb day taw yu njëkk xaalis da cay wàcc yàlla na doonu xéewal di leen ñaanal mbokk yi kenn dalug yow sa la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew